asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ah tey nag ñu ngi Pikine waaw li ko waral nag yàgg nañ fee dugg ci làmb di fi dugg ci lépp te it duggaat nañ fi lépp ci làmb lay dellu ndax li ko waral mooy ku ne xam na ne fan yi ñu génn di samedi passé Jules Baldé Senior yàlla dafa koy jële mu wuy ji boromam ñu koy ñaanal yàlla jéggal ko te xare ko aljana mais bépp néew bu mu fekk ci suuf ak bu ko fa fekk barke yonent bi sallallahu alayhi ñun ñu fi des tamit yàggal ñu fi may ñu gudd fa nag wér gu yaram ñu na du mën a jaas ku lu nafsin saay xatin mawtin la yàlla wax loolu ay waxam la du dañ tey nag dañoo ñëw seet si koo xam ne nii Pikine defe naa ne lim ñu mën a wax ci mbir moomu ci loo xam ne lu xel mën a lu nopp mën a dégg la muy wax bu rafet wala lu jaaroon wala lu leer nañ lu lu ñu mën a teg baaram daal defe naa ne kooku ñu bëri xëy na bàyyi wuñ koon xel te defe naa ne am na fu mu yeggoon nag Jules Baldé Junior ci wàllu relation muy góorandooy nekk ku yàgg sonn ci làmb yàgg sonn ci doomu aadama président des jeunes amateurs Gora maa lay nuyu di la ziar. waaw Babacar maa ngi lay fay vraiment di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu képp ku nekk ci làmb di nuyu monde làmb yëpp. di sant yàlla bu baax a baax a baax a a baax bi nga ma fekkee tey fii sama kër fas yéene def ak man émission Gora bu ma la doon laaj tey ci lu gàtt rek balaa ñuy dugg ci lële kan mooy Gora Ndoye fu mu cosaanoo fu mu soxeeku ak lu ko boole si làmb waaw Gora Ndoye benn jeune la bu dëkk Pikine yaroo Pikine màggee Pikine vraiment nekk tamit koo xamante ni vraiment dama fréq teel a fréquenté làmb sama papa nekkoon ménager yoroon ku mel ni faga deux bu bu faas ak père Richard sama papa moo nekkoon Ibrahima Diallo waaw ñu gënoon ko xamoon nekkoon Sotrac. yàlla dogal mu daan nekk ci làmb di am ay mbër yoo xamante ni moom moo nekkoon seen ay ménager mhm. waaw comme ni ma la ko waxee. Mhm. yàlla dogal aussi bi mu màggee aussi juddu ci goxu làmb muy Pikine. Mhm. bi may juddoo ci goxu làmb aussi di fréquenter ay mbër yoo xamante ni ay doomu mbër lañ mhm. ndax mën naa ko fréquenter Cheikh kan doomu Papa Kane mhm. fréquenter vraiment ñoom Eumeu Sène mhm. fréquenter ay mbër yoo xamante ni mën naa wax ñun ñoo defandoo génération loolu vice bu làmb foofu la ma duggee Papa kon aussi suñu papa daan tëgg mbapat fii ci angle bi vraiment loolu foofu la ñu làmb duggee ba tey jii ñu dem ba am ci pouvoir bi ñu ci am ni incha allah nga nekk ci mu mel ni kon loolu nga def moom liñ hmm. père ku ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi la hmm. laa ko mën a tuddee hmm. nga nekk ci ba tey ñuy dégg Gora Ndoye président des jeunes amateurs ak yu mel ni ki doon ak yeneen mu mel ni taxawaay yooyu mu ngi gën di yokk masala saa yoo xëyee lu waral loolu waaw loolu moom vraiment tamit ñu ci sant yàlla baax di ki nuyu waa jeunes amateurs yëpp ndax maanaam njiit yombul te ëpp ma fa xam-xam nekkuma fa koo xamante ni gën naa fa xam làmb mais yàlla moo dogal ñu amu nekk service boo xamante ni ñu ngi liggéey ci social di liggéey aussi ci làmb mooy bu làmb jotee ñun ñëpp ñooy daje chaque dimanche di toogandoo ci stade bi yàlla def ñu dem ba sentir ne war nañ former kurel bi ñu former kuréel aussi suñu njiit nekkoon Idaali Ñing mu dem benn moment mu nekk promoteur amatul temps pour nekk euh, président des jeunes amateurs man maa nekkoon vice président bi ci lañ ma nommé président des a bu baax ndax tey la. am na solo bu. Ibra bébé Julde maa ngi koy bëgg bu baax a baax ñoom Balla maam Diarra bu Ngel Diop tuuti ci Pikine mhm. euh, parce que loolu nga fi jot a wax ci mhm. mbër yooyu ak ñoom Eumeu Sène ak mhm. gaa yooyu euh, ku tudd Pikine tudd ndongoloo te wàllu làmb defe naa ba tey turam des na ci ndax nu mu ko doon dundale fii ci mbapat yeeg fu nekk ndongo moom seen ay ci làmb ndongo ci laajee naa a tontu ndax moom it ku ma fréquenté la ndax fii bayal bi ngay gis nii yaakaar naa bokk na fi nga xamante ni daan na fi way ay simb jamono ji Pam Ngom di simb magu Amar moom moo daan woy simb yi moom ak Ivnia. waaw ma yàgg ko fréquenté nag. ànd naa ak moom jugandoo moom car rapide. ba fayal ko. fekk boobu mu ngi doon dem mbappatu mbay sàmb mbapat bi daan am marché euh, école neuf ñu àndandoo man ak moom ci car rapide keroog ndeysaan boobu ne sax ci way yi mu doon way ci biir mbapat bi boobu ndeysaan kenn xamagu ko nii mu nekk koo xamante ni mën naa wax symbole la biir Pikine def fi lu ne ndax ndongoloo mën naa la wax ni la bëri na mbapat yoo xamante ni seetaan naa leen Pikine mburu Pikine daf leen daan ñaax bu nit daanoo sax bu ko beneen mbëru gox daanee sax bu wayee sax sa yaram tàng boo bëreewaatee da ngay daan mhm. mu nekk koo xamante ni mën naa wax ni icône la biir Pikine yàlla dogal li mu dogal ci moom ñuy ñaan yàlla suufu Touba yàlla na oyof ci kawam waaw nekk koo xam ne moom foo ko tuddee rek ñun Pikinois yi dañuy gis suñu bopp mhm. waaw ñu ko koy koy ñaanal yàlla gërëm ko yàlla yàlla tabal ko yi gën a kawe mhm. relation Pikine bu ñu mhm. nañoo lim ñi fi nekk Ama Sène mooy mag actuellement ñoom Ama Boy yi nga xam ne mën nañ ñu ngi biir Pikine daal tey relation ak ñoom nu mu demee en tant que nit bu nekk ci làmb waaw relation bi vraiment relation bu rafet parce que yàlla dogal na man baabooy laa njëkk a sax ci mbër baaboy moom yaakaar naa ne ku ma xam rek ci làmb baaboy nga ma xamee mm. waaw mu nekkoon sama mbër yàlla dogal bi mu demee aussi ba génn làmb aussi Eumeu Sène aussi ñëw jël relève yi ndax mën naa wax ni tey ji mën naa wax moo yor flambeau bu Pikine ndax Tyson nekkatu fi baaboy nekkatu fi mais sama relation ak ñoom nekk relation bu rafet relation entre frère ak petit frère Eumeu seen ñoo foondoo ñoo defandoo lépp ñoo defandoo lépp bëri na ay jaar-jaar yoo xam ne jaar nañ ko xëj na du waxu média mm-hmm. mais vraiment séq nañ lu ne yàq ngeen lu ne Ama Baldé man naax sama rakk la du sama mbër sama rakk la ndax magam paate laa daan àndal ñuy dem mbapat Boy Niang aussi nekk suñu frère Boy Niang man maa ngi ko njëkk a découvrir ci mbapat bi nga xamante ni bëri na ak fii nii hmm. suñu benn booy Amben Ndiaye doomu Pa Cerno Ndiaye di ma ko présenté nii hmm. waaw boobu man Modou Gueye sax laa xamoon ni laa ko xamee woon boobu tuddagul woon Boy Niang waaw mu nekk tamit relation yi sincère ndax keroog bi nga xamante ni jóg naa pour dem seeti ji ñoom ñett ñëpp pour ñu tourner émission Bantamba bi ku ci nekk sa kër laa la fekk vraiment ñu dalal ma xamal ne ma ne yow suñu frère nga suñu lépp nga et puis école nga biir Pikine soo jógee ñëw démarché ñu pour ñu def benn affaire pour jàppale suñu frère Jules Baldé Junior dañ ciy sawar ñoom ñëpp jox ma seen accord muy Boy Niang muy Eumeu Sène muy Ama Baldé te ku ci nekk sa kër laa la fekk nga recevoir ma sa salon ñu waxtaane ko te bi heure bi jotee aussi pour ñu tourner émission bi aussi ñoom ñëpp disponible nañ nañ ci liñ ci war mooy bantamba ñu def ak Modou Mbaye mooy bantamba bi ñu def ak Modou Mbaye Pape Sidi Fall ak ku ci nekk man maa la contacter dem sa kër jël sa numéro jox ko Modou mbay pour ñu tourner émission bi pour maanaam mu jàppale suñu frère pour soutenir ko Mm-hmm. am na solo ñuy mm-hmm. nuyuwaale waa 2STV mm-hmm. rawatina Modou Mbaye ak Pape Sidi émission boobu déglu naa ko amoon na solo trop léegi nag damay ñëw ci li nga xam ne nii encore une fois ñu ngi euh, li ma bëggoon a xam mooy sa relation ak moom nu mu demee lu ko indi ak itam bi mu nekkee ci jafe-jafe ci li ma am ci ay xibaar yu ma gëstu maanaam yow defe naa nekk nga ak moom ay fan yu bari wala ay weer wala sa loolu loo si mën a leeral sénégalais yi dëgg sama diggante ak Jules Baldé Junior mu ngi démarré ci sama xarit bi ma Abdou Salam ki nga xamante ni man maay moom moom mooy man foo ma gis rek gis ko ci wetam gis ma ci wetam muy sama frère di sama lépp tuddee ma doom aussi yàlla dogal moom mook Jules Baldé Junior ñoo dëkk man Jules Baldé Junior gis nga fi nga ma fekk këram mu ngi si ginnaaw yàlla dogal bi ma koy fre bi may fréquenté Abdou Salam ma ko fay fekk saa yi ma ko fa fekkee rek ma naan ko Abdou Salam sa booy bi de vraiment booy bu am ambition la ndax gis naa ko mu yëngatu ci làmb mais il faut rek jàppale ko Abdou Salam ne ma yaayam dafa ñëw ba ci man ak papaam ne ma dénk nañ la Abdou Bilaay Abdou Salam laay lépp lu mu mës a bëri ci làmb Abib Salaam moo téye avance bi bu baaxum Bakhoum jëligee avance bi CNG bu ñëwee moom la koy jox moom mooy may woo buñ des fois buñ ko proposé adversaire daf may woo ne ma diw lañ ko proposé ma ne ko diw baax na bu dee combat boo xamante ni xam naa ne munu ci génn ma ne ko combat bi baaxul nañ xool beneen loolu moo indi sama relation ak moom mais début bi xawoon naa am tuuti écart parce que dama daan ñëw rek yëkkati xaalis jàppale ko mais bi ma demee dema dem dafa gis ci sonnee parce que mbër boo demee bay taxaw di ko sotti gàllaaj ba dernière bouteille am yow nga taxaw di ko sotti kooku wóolu na te am ay frère am ay mbokk léegi nag man loolu mu ma jege si loo nag Abdou Salam sama frère la boo xam ne te ni fu mu nekk rek dama ciy nekk lu mu dugg dama ciy dugg lool moo indi sama relation ak Jules Baldé Junior ñu xaar noo duggi daanoo yàgg maar loolu nga wax leer na seen diggante ci relation muy relation boo xam ne kon bu bu dëgër la mu mel ni diiran mu feebaree mhm. mm, nekk nga ak moom lu yàgg mhm. ñaata weer wala ñaata fan la góor a mhm. partagé ak moom ba yàlla indi dogalam waaw Abibulaay moom mën naa wax ni diiran feebar bi yëpp ñu ngi ànd ak moom mais dafa am dernier trois mois yi mujj yi nga xamante ni ci la yàlla dogal mu génn àdduna ci laa ko gën a jege nag mais durant mu feebar parce que bi mu njëkkee feebar bi ko affaire bi njëkkee daaneel Camp Thiaroye lañ ko yóbbu daanaa fa dem di ko fa fekk ji koy assister yàlla dogalee aussi mu jógee Camp Thiaroye aussi si kër ko affaire bi daanalaatee aussi vraiment ñu yóbbu ko dalal jàmm bi ko yóbbeelee bi ñu ko yóbbee bi ñu ko yóbbee non fan yóbbu ko fan bi ñu ko yóbbee fan aussi ñu assister ko assister ko ba mu jógee fan ñibbisi waat ci kër gi bi ko bi daanelaatee ñuy remercier buuba Boubacar Sall bi nga xamante ni médecin la nekk dalal jàmm nekk copain am ndax yaakaar naa moom la tuddee sax doomam kooku moo ko jël yóbbu ko dalal jàmm jël engagement yëpp taxaw ci aussi moom ak suñu benn frère bu tudd Pape ñu yor affaire médi médicale yeeg yëpp nekk ci di ko assisté dalal jàmm ba su ma juumalee dalal jàmm fa la ko billet bi nga xamante ni moom la ko Pape Gorgui Ndong jox ci ci maanaam ci turu Arouna jax ñu jëlee ko dalal jàmm yaakaar naa fa la jógee dem Tunisie dem faju bi bi mu demee Tunisie aussi dem faju ji aussi vraiment ci la ñibbisi bi mu ñibbisee ñun ñëpp suñu xel dal ñu gis ko vraiment mu changé carrément ñun ñëpp ñu am yaakaar ne wér na mais boobu tànk gauche bi moo jëloon bi tànk gauche bi jëlee bi ñu ko yóbbee Tunisie ñu faj ko ba mu wér bi ñu ko fajee yàlla dogal mu ñibbisi aussi tamit ñun ñëpp ñu am satisfaction totale di sant di gërëm def na sax émission boo xamante ni da doon sant ñi ko jàppale ak ñi ko taxaw ba yàlla dogal mu jëlaat santem mm-hmm. mais après par la suite nag ay deux semaines trois semaines ci la commencé di soox tànk bi léegi bi mu commencé di sox tànk bi ñu am fi benn dese bi mu ñëwee ma gis booy yëpp gisuma ko ma dal na Abdou Salam waa Abibulaay anamu dama gis si dese bi kat ñëpp assisté te gisuma ko ñu laajte booy yi ñu ne Abibulaay def fen yi feebar bi daf ko daaneelaat ma leen daaneelaat ñu ne waa man ah loolu loolu mënul ne Abibulaay wér na xam nga ñu ne noo tànk gauche bi ko daaneeloon ba ñu yóbbu ko Tunisie tànk bi wér na mais droite bi moo jël bi droite bi jëlee aussi tamit ma ne Abdou Salam nañ fa dem ñu ànd daal di fay dem bi ñëwee ñu fekk vraiment ci ci moment yu yu difficile sax waaw muy muy dund lu metti bi ñu ñëwee it ñu xamal ko ni ko waa mais lii nan la demee mu ne ah gis nga de mbiru yàlla suñu borom rek mais ya nattu la ba ma yàlla teg rek saa bu ko waree teggi dina ko teggi par la suite nag ci lañ ko jëlaatalee rendez-vous vraiment ñu yóbbuwaat ko fan waa bi ñu ko yóbbuwaatee fan aussi vraiment affaire yi métti trop métti trop Abdoulaye dem na benn moment boo xam ne làmmiñ bi moo njëkk a dee mun am na moment boo xam ne mënatul wax bàcc séras bi ko affaire bi arrivé moom ci boppam néew na ni ma bàcc am na pas bu bi koy faj mu ngi jam ñaajo man li ko dal daloon na ma toog naa une semaine yoo xam ne mënu ma wax mais nay en attendant muy dem ci paa bi nay yëy si ngoom bu yëy si ngoom rek neer yi day commencé di bàyyi mu ne ma tension mooy def loolu moom Abibulaay wax na ma loolu ba ma lijjanti numéro Bathie Seras woo Bathie Seras ñu wax ko loolu waaw loolu ci début feebar bi la mhm. Mhm. mooy bi ko affaire bi daane la mel ni moment yu diir moment yoo xam ne metti na mhm. nga dund kook nit koo xam muy sar nga di ko assisté dem ba mu ne ci ay moment yoo xam ne daal ki nga daan gis gisatoo ko ki nga xamoon xamatoo ko maanaam par rapport ak nu mu mel loolu góor dafa mel ni metti na metti na trop Babacar ah. metti na trop parce que booy bi début bi affaire bi mën naa wax ni ci picc la démarré ci tànk bi picc picc moo nekk ci baaraam bi di maanaam di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba jàpp baaraam bu mag bi bu guddee du nelaw. léegi mu mel ni kon daal ci mm-hmm. mbir moomu. tamit mm-hmm. tension kon dañ ko ciy gis ci feebar bi après. Mm-hmm. waaw tension feeñ na ci parce que mooy. moment euh, bi mu nekkee bi mu nekkee Camp Thiaroye mhm. waaw analyse génne na loolu quoi mhm. génne na ni affaire bi xaw na floré tuuti tuuti tuuti tuuti AVC waaw loolu bokkoon na ci début bi mhm. waaw ci feebar bi feeñ na ci feebar bi daal mais vraiment affaire bi bi mu ko daanalee ci début bi ci picc boobu noonu génne ci tànk bi par la suite nag picc bi mujj nekk góom nag waaw góom bi nag moo mujj nag di law nag di law di law di law ba pare boole ko ak métit nag waaw ñu dem ci nag lu nekk dem nañ ci fu nekk dem nañ ci sëriñ yi dem nañ ci hôpital dem nañ benn moment boo xam ne sax gëmatuñu woon hôpital dañu gëm ni lii def def la te il fallait que ñu jóg ci socialement dugg nañ fu nekk amul fu ñu demul amul fu ñu demul amul fu ñu demul bëri na tey ji loo xamante ni mën naa la ko won ci ay misaal ci ay sarax yoo xamante ni dañu ko bindal mhm. ay ñaari feuille kanam ak ginnaaw yoo xam ne dañ ko waroon génnee te jot ñu ko sax génnee parce que moom dafa àndoon ak feebar bi li muy metti yëpp daf ci ànd ak la ah, baax na lii a nattu la rek bu ma yàlla teg su ko yàlla waree teggi rek ko teggi waaw boo xoolee Euh, interview bi njëkk a def ak moom. ci moment koor gi. interview boobu peut-être moo indi moo tax sax affaire bi siiw. parce que ci la waxee lu daw yaram mooy que ni dafa am benn analyse bu mu waroon def clinique Alioune Sarr clinique Pasteur. ñu facturé ko presque trois cent mille deux cent quatre-vingt-dix mille. bi mu koy def moment boobu noonu metti na trop ci moom mais yàlla dogal tele yaayam la mujj jël démonté ko jaay ko. bi mu ko jaayee moom la fayee analyse parce que boobu jeexal na. ndax xëj na ñu bëri moment bi muy doog a si feebar ci pied bi. ci mm-hmm. lañ jàpp. def ci lu nekk mm-hmm. mais après bi droite bi ñëwee ñu bëri dañoo jàppoon ni wér na surtout bi mu demee Tunisie ñibbi si ñëpp dañoo ne wér na ñu bëri bi ñu gisaatee image yi ñu ne dafa affaire daf ko daaneelaat daf leen jëlee kaw parce que boobu dépensé nañ ci tànk bi presque 12 millions yoo xamante ni ñëpp jaakaaroon nañ ni wér na mm-hmm. affaire bi récupéré waat ci beneen tànk bi waa ñii di wax lu nekk ñi daan kortu la ñii di wax lu mu dëgg la ñii di wax dañ ko sànni liggéey ñii wax dañu tibb tànkam lu nekk wax nañ ko ci mm-hmm. mais moom mu am ngëm nag am ngëm yàlla onkuwul xasul nit waxul kenn lu ñaaw lu ko waay jox mu jël lu ko waay joxul it mu toog sant yàlla. vraiment bi ñu defee démarche aussi mbër yi def ci lancer appel après par la suite tamit foofu la affaire bi yam amul suivi. mais ñun ñi nga xamante ni jege woon nañ ko sonnoon nañ trop parce que yooxu nañ de gauche à droite. waa dernier moment nag ci lañ gis ku mel ni Keba Kanté ñëw présenté wu taxaw. Keba Kanté bi mu ñëwee aussi jël ay engagement am. vraiment ne damay dem ba jeex bu laajee ma dem ba gis sam sax mhm. pour mu jàppale ma ci social pour ñu taxaw ko mhm. dinaa ko def su tëlee dinaa seeti ay bonne volonté yoo xam ne xam naa ne dañuy def social mhm. même bu laajee ñu yóbbu ko Europe dinañ ko def mais booy bi dina jóg ak jàmm waaw te moment bi Keba di ñëw daf ko doon indil benn chaise bi mu koy indil chaise bi ci la tombé mu crise ñu yóbbu ko ci farm ñu yóbbu ko ci ci benn clinique bu nekk ci technopole bi léegi bi affaire bi amee aussi tamit Keba taxaw ne pare na jël ko en charge fekk na boobu avant ku mel ni suñu premier ministre Matar Ba bi Korité bi desee du dix euh, trois jours ku mel ni tey jii nii suñu sœur nga xamante ni mooy Ibadou Matar ba muy Marème Fall moom moo démarché ak Lamine Thiam Dogo ñu fexe ba ministre bi may ko enveloppe cinq cent mille ak ay weccit ordonnance ma ko mujjee jëndal vendredi la ma ko jox ñaari ordonnance ma jënd ci ma joxe dix mille ñu wecc ma presque sept mille et quelque mhm. xaalis boobu ba may wax yow nii fii may wax nii mu ngi sama armoire waaw yàlla fekk boobu xëy na yàlla moo ni ci moment boobu lay dem fii lay yem mm-hmm. Mm-hmm. mais avant moom Matar Ba jox na ko enveloppe cent 500000 avant Matar Ba aussi tamit suñu papa Demba Ka bu mm-hmm. EDK OL moom moo njëkk a def geste parce que bi mu sévré affaire bi ci internet bi mu wax loolu noonu télé yaayam bu mu jaay pour fay ay analyse am yaramam daw mu woo ko mel ni Abdoulahat Ndiaye jël chèque bu 250000 jox ko jël télé may ko loolu dama koy wax ba ñëpp dégg ko te bëggul ku ko wax muy dembaka Ka bu EDK Oil mhm. bi ñëwee Abdoulaat jël téléphone am ñu woo ko mhm. booy bi remercier ko mhm. waaw booy bi remercier ko te booy bi it amoon na yéene ci moom ne góor bis ma yàlla mayee ma jóg ak jàmm Demba dinaa dem ba bureau am seeti ju ko xamal ko ni ko defal na ma teraanga ndax loolu mu def noonu rëy na ci booy bi trop télé boobu mu jaay tele bi nekk seen kër instant bii ñu fay seetaan télé Demba moo ko jënd jox ko enveloppe koor gi yëpp durant koor gi yëpp mhm. xaalis boobu moom la nekk di ko utiliser ba yàlla dogal li mu dogal waaw mu mel ni kon daal yàlla moom mu ñëw ki dogalam mhm. góor a kon mhm. euh, li ci des daal pour man mooy xanaa ñaanal ko yàlla yërëm ko dëgg la ñi ci doon dugal seen loxo tamit ñaanal leen yàlla ñi ko ko yénewoon te mënuñu ko tamit ñaanal leen yàlla parce que da olof ne na daanu dajul suuf dajul suuf dëgg la yaa ngi dégg yàlla def nag samedi mu génn àddina ñu denc ko jébal ko boroomam mel ni Ndeye Coumba wala ku mel ni góor di wax mhm. actuellement mhm. lan moo war a nekk fi mu nekkee nii mhm. wax ji ginnaaw moom mi fi nekkoon yàlla jël na ko fi bàyyi na fi doom bàyyi na fi ay wajur ak i sœur waaw waaw wax ji moom mooy vraiment lii nga xamante ni moom la ñëpp wax parce que gis nga Babacar àdduna fii ñun ñun ñëpp dañ fi ñëw te ñun ñëpp dañ fi jóge bu doon alal rek yaakaar naa ku mel ni tey gi Ahmed Amar du fi jóge ku mel ni suñu baay jógo kebe du fi jóge xëy na mën na ci feebar dara ndax boo boo amee ordonnance boo jëndul di nga ko jënd mm-hmm. Mm-hmm. mais bis bi nga war a jóge fii mm-hmm. kenn mënta wax ba nga romb ko Abibulaay samedi la yàlla dogaloon ne ci la fiy jóge bu milliard ñëwoon it dafay fiy jóge samedi bi bàyyi ko fi kon na gëm yàlla te xam ne yàlla moo ko ñu ko joxoon moo ko jëlaat tey ji nii ñu bëri ñu ngi wax mais wax ji jaratu ko ndax ki nga xamante ni tey moo tax ñuy wax moom bëggul woon wax ndax ci biir dundam mu ngi ci dëgg maa ngi ci dama koy fekk ci biir dundam musul nangu ko toog ci wetam di tudd nit ne pourquoi pas dimbaliwu ko dimbaliwu la parce que jàpp na ni képp ku ñëwit yàlla yaakaar naa moo la ëpp doole te yàlla moom mu ngi koy tuta ni mu ngi koy taxaw fàtte naa aussi koo xamante ni daf na ci lu rafet muy ku mel ni papa booy jinne mhm. jëkkëru Ndeye Gueye ñëw na fi jël ko fi jour boo xamante ni oto la indi ñu yóbbu ko parcelle ci benn mara mara bi mu ngi nekk quatrième étage te fi ñu jaar ba yéeg pour dem fekk ji mara bi xat na trop couloir yi xat na mhm. papa moo ko boot yan ko yóbbu ko ba ci kaw ci mara boobu noonu ba pare yëkkati xaalisam fay loolu tamit geste la boo xamante ni bu ma marqué la mhm. te fu ma toog dinaa ko wax muy papa booy jinne te yàlla dogal na xëy ne eggul fenn fi ci la mais li am nii am nii am na ba pare li ci des mooy nañu rafetal ndax ëllëg ñun ñoo fiy des te ëllëg mën nañu nekk ba suñuy doom di séyante ñuy tuddante ay doom mhm. kon nan lañ rafetal mhm. Abibulaay bu doon ay milliards it day dem kon léegi li li am yàlla def na ko nañ sant yàlla te ñaanal ko yàlla képp ku amoon ci moom yéene boo xamante ni bu bëggoon nga ko ci moom te yàlla dogalu ko yaayam mu ngi fi bàyyi na doom bu am 3 ans. Mhm. na ko mottali ci ñoom. parce que ni ay néew gi doole lañu. Mhm. am na suñu frère tamit bu fi ñëw après lendemain sarax bi muy Waly Seck. Mhm. def fi promesse boo xamante ni ñëpp a ko rafetlu adduna yëpp ko rafetlu. ndax su ko neexoon mu bañ ko def tamit. parce que du Abibulaay rek moo fi génn adduna. am na ñu ko ëpp tur am na ñu ko ëpp daraja am na ñu ko ëpp lépp génn nañ adduna te demu fa def promesse. kon bu yàlla dogalee mu mu dogal lii ci Abibulaay mu ñëw fi jël jël jël initiative bu may yaayam terrain. Mm-hmm. may yaayam terrain ñu mm-hmm. bëri ñu ngi naan kër mais terrain la ko may mm-hmm. kon nañ rafetlu loolu te sant yàlla te xam ni lii mu def nii su ko deful woon tamit duñ ko ni daf ko war a def par force ndax moom kese nekku fi loolu ñu ngi koy sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla kayit yi yàlla gaaw ko indi ñu jot ñu wax ñu site bi fan la nekk bépp bonne volonté aussi boo xamante ni tamit pare nga tamit pour dimbali yaay abibulaay terrain kese nit mënu ci dëkk lépp loo leen ko dimbalee mu jëm ci ciment jëm ci fer jëm ci suuf nañ ko ko dimbalee maire bi mu te vraiment sësul fenn te moom aussi tamit nekk na ko gore li coow li di bari bari yëpp kenn dégg ko mu wax mu ngi toog ci buntu këram di jaay ay baleem di jaay ay màddam amul ci lenn lu mu sukkandiku lu dul bale ak màdd ak magam bu jigéen bi nga xam ne mooy dabalaay xëy dem marché jën jaay ñëw tax seen yaboot ñu lekk ay sëram aussi ñu ngi leen di sant ku ci mel ni xadi seen taawu kër ak Aminata Sagna sonn nañ ci feebar bi trop mais particulièrement ki nga xamante ni mooy Pape Souran Pape Souran nekk na koo xamante ni man bu doon sama sago sax reportage bi moom moo koy def parce que ànd nag ak Abiboulaye ci ci bi muy dund ci bi muy nekk ci ci ci en activité di bëre ba ni mu génnee àdduna moo ko doon sang moo ko doon defal lépp loo xamante ni nit mën na ko defal boppam te mënu ko def ba bi muy dem Tunisie ñoom ñaar ñoo ànd kooku aussi ne ko ñëpp jàppale parce que xale la boo xam ne tamit wéerul fenn te nit ku baax la nit ku gore la waaw ànd naa ci bi muy neex ànd naa ñoom ci bi muy naqari mais li may wax daal mooy nit ñi nañ delloo seen xel si yàlla mhm. te bu yu mel ni amatee ku nekk li ngay wax nga xam ko mhm. ñun ñoo fi bokk nekk te ñun ñëpp ay frère lañ mhm. Abibulaay yàlla moo dogal li mu dogal si moom mhm. te ñun ñëpp dañ koy fekk ñi kon nañ ci wax lu rafet mhm. ñaan si lu rafet ñaan si lu rafet léegi fi ñuy jeexale tey boo amoon message booy lancé mbër yi pour ñoom parce que euh, tamit la plupart da ngay faral di dégg nañu jàppale mbër yi nañu jàppale kii est ñoom it jotul ñoom ñu xool nu ñu jani utey benn initiative ci seen bopp mhm. pour yu mel nii bu arrivé tey ñu gën di ma di jiitu ci seen bopp balaa mhm. leen ci nit di fekk mhm. parce que gis nañ ko mais comme lu nga wax ci papa boy junior lu daw yaram la gis nañ tamit mbër bu mel ni Mama Lamine wax na ma ne sax digganteem ak Zilbade euh, Junior bu ñu amee relation yow yaa ko indi muy loo xam ne tamit lu ñuy rafetlu lay doon mais ñoom après looleen leen di ñaaxaat waaw mbër yi nekk en activité moom li ma leen di ñaax seen président laa koy wax muy Gris Bordeaux ndax yaakaar naa ñoom ñi fi nekk ñëpp moom moo leen coiffé euh, lépp loo gis ci àdduna rek organisation daf ci baax te yàlla dogal na ñoom am nañ association boo xam ne mu ngi dox tey jii nii rafet na tey jii ñu xool ñoom seen biir ñu réunion te mu nekk tamit lu dëggu parce que làmb aussi Babacar waxante bi dafa bari mais jëf bi dafa néew mu nekk loo xamante ni lu dëggu la bu nga xamante ne tey jii nii ñoom ñëpp dinañ toog ñu waxtaan seen biir xool loo xamante ni tey jii nii dina nekk loo xamante ni dina avancer loo làmb parce que làmb war na dépasser mbër feebar ñu koy ketal wala mbër feebar ñuy ñaan ay doomu aadama ñu ñëw di leen dimbali parce que tamit euh, tey jii boo xoolee tey ku mel ni Gris Bordeaux war na mën a organiser wu ak ay frères ñu xool loo xamante ni tey lii initiative bu ñu jël la mbër bu jëlati avance ñu am lu ñu comp ci sa avance ut benn benn benn kees bu ñu koy dugal loolu doon loo xamante ne tey képp ku daanu feebar ñoom ñooy jiitu ñoom ci seen kees jël dimbali la bu ñu demee nag ba tële ñu doog a woo bonne volonté yi mais tey rafetul tey ji ñoom ñi nekk en activité ku ci sa morom daanu feebar ñu génn ci télé yi génn ci média yi di la ketal di la ñaanal loolu rafetul nañu organiser wu fexe di def social seen biir ñun amateurs yi sax dañuy def social Babacar ni ñuy gisee ci stade bi chaque samedi wala chaque dimanche ñu ngi nañ social boo xam ne ku ci nekk dañ naan social na ñaari nit yu ko yor ku mel ni Mor Seye ak ko mel ni Youssou Bodian ñoom ñooy laaj social ci tribune bi ñiy joxe 1000 francs ñu joxe 2000 ñu dajale ko def ko si kees fi mu nekk ni dëj day bette tey bu ñu xëyee ñu ne kër góor a de am na dëj dañuy woo ki yor social bi rek ngi yëkkati ki 50 mille ñëw jaale ko parce que dëj nekkul loo xamante nañ koy dajale ci saa ah, nekkul lu ñuy programmé mbiru suñu borom la mm-hmm. ngénte aussi noonu tamit la ñuy def mm-hmm. loolu ñoom war nañ ko mën a def ñoom yi nekk di bëri ñu organiser wu ni tey jii nii képp ku amati kase ci làmb ñu am luñ ci comp teg fenn yëkkati loolu mu doon tomb dëgër ñu ne ah mbër yi kat ñoo yëkkati lii nii ñëw jàppalee ko suñu frère bi loolu rafet na trop mais tey jii nii jaxasoo nañ jaxasoo boo xamante ni kenn comprendre wul Gris Bordeaux bi mu ñëwee wax naa ko ko mais mu ne ma fi mu nii affaire bi liy jot jot man li ma waroon def naa ko mooy ñëwal naa sama bopp dëj bi Sénégal ñëpp yëg nañ ko ku ñëw baax na ku ñëwal it baax na kon ça veut ko kon xam nga ni kon ñoom ànduñu ah, waaw te loolu rafetul waroon na ñoo booloo ñoom ñëpp def mm-hmm. benn cercle mm-hmm. jël benn biis ñëw ne tey kat association des lecteurs en activité ñoo ñëw pour jaale suñu frère Jules Baldé Junior ñoo yëkkati enveloppe bi ñoo ko teg taal bi loolu nekk geste bu noble bu keneen àdduna bànneex ak naqar rek ñoo fi dëgg la dëgg la dëgg mhm. la kontaan ci yow Gora mhm. kontaan naa ci yow jërëjëf yàgg maar mhm. euh, am na solo li fi wax defe naa wax ju leer naññ la te itam ku ko dégloo xel di nga fi dégg njariñ encore une fois rek lañ doon wax la ñuy wax rek ñu ñaan yàlla way dawlu yàlla yenoon jégg leen xare leen aljana muy Jules Baldé Junior rek nga xam ne nii ngi tëdd ci ci jiital tamit sama wayjur wu jigéen aljana mais di wax mention spéciale ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci ak ñi am yéene jàpp ci papa booy jinne sas boobu mu def mhm. lu noobul la yaa ngi dégg loolu loolu loolu vraiment lu rafet la ci xale loolu rafet na trop papa macha allah yow tamit kon laf cat Abdoulaye Ndiaye tamit loolu mu def tamit am na solo trop yaa dégg jaarale ko ci Demba mu jaar ñëw ci moom loolu tamit am na solo mhm. pour wan la mhm. nit moom ndimbal la na koy doyee mm-hmm. encore une fois yàlla nañu yàlla dimbali mm-hmm. jàppale ñu tàppe suñu ay xol mm-hmm. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàgg maar